sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wajal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaan alxikam waliya habil mustapha xayra siyam mbokk yi ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew bi biñ santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci sangu bu tedd ba muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifatul am cheikh muhammadul muntaqa yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wéral ko te mottali ay naalam mbokk yi ñëwaat nañu ak yéen seen émission bu am solo bi muy boole alquranul karim yi ñu ànd ceeg sëriñ Maxtaar Kebem Cheikh Saalihu Mbàkke waaye ci ndimbalal société bi nga xam ne mooy C3S di compagnie Alaaji Sëriñ Sekk yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér waaye itam fàttewuñ ñi nga xam ne ñooy coordonné liggéey bi ba mu tegu ci yoon ku mel ne Alaaji Fàllu Sekk ak Alaaji Daam Ture yàlla na yàlla guddal seen fan te defal leen jàmm euh, di sant itam suñu technicien sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi ci wàllu caméra yeeg ak euh, montage yëpp rek di ko ñaanal wér ak gudd fan waaye fàtte wuñ suñu mbokk suñu xarit Serigne Mbacke Sourang borom daara Taysirul Asir di taxawee émission bu am solo boobu nga xam ne mooy émission yaru ak yare damay wax ne mbooleem kuy jiite ay nit rek war ngay teewlu émission boobu ngir solo su ci nekk mu war ci ànd ak Serigne maxtaar Kebe mbokk yi lii yëpp laataa ñu cee dugg ñu ngi jox kàddu gi sëñ Makhtar sëñ Makhtar di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah aleyna waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Omar Silla maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare di nuyu bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp fu ñu mën a nekk tàmbale nuyoo beeg ziar bi ci saaxibul fadila al cheikh muhammadul muntaqa xafidahu llahu wa raa wa waffaqahu wa tawalla di ki teg njabootu sëriñ tubaa yépp di nuyu kilifay diine yi ci atti diine yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi waaye nag delluwaat di nuyu waa c 3 ñi nga xam ne ñoom ñoo waral lii muy lu am solo loo xam ne jamono laaj na ko te musta dañ di ko laaj te du dañ di ko laaj muy xam-xamu mag ña bokk na ci nag boole alxuraan yi nga xam ne dañ koo tënk boolee ko ba muy benn te waxtu wu nekk ay njëriñ yu bari di ci génn te muy xam-xam boo xam ne it daa mel ne jëloon na ay bagaasam ba tàmbalee able kon ku ko delloo si rek defal nga suñu borom du rëy a rëy di tàmbalee nuyu bi gis alaaji sëriñ Seck C3S di ko siyaare bu baax ak fal lu Seck sëñ Dame Touré bàyyiwuñ kenn ci waa societé bi ñi ci capital bi ak ñi ci bànqaas yi réew mi ñëpp ñu ngi leen di ziare fi ñu mën a nekk ci sées yi ñu am foofu waaye di nuyu sëñ Moustapha Sa mi nga xam ne mooy suñu technicien bi ni nga ko waxee léegi sëñ Omar waaye di nuyu itam sama mbokkum daara laa ko tuddee Serigne Mbacke Sourang moom ci kanam tuuti incha allah rabbi moom itam danañu dugg ci euh, émission boppam bi nga xam ne mooy yaru ak yare ni nga ko waxee léegi salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu di leen ngi leen di bàyyiloo xel concours boobu nga xam ne mi ngi waaj a am incha allahu rabbi dara lépp lu ci xew rek incha allah da leen umpu kon ngeen ngeen bàyyi ko xel sëñ Maxtaar tey suñu laaj bu njëkk jëm ci wàllu boole mooy an na songu maw ni an na songu maw ni njeego mooy juróom benn la ñëw ci alquran an na ak sarahum njoogu wala wan na ahlal kitaabi njoogu wala wan na ahlal qure la araaf an na abaakum mbargaan an na asxaabal kahfe nga njengi anna aktarahum furqaan anna gi nag ak ci kanamam mooy mew ni mew ni mooy alif googu day rëy bu rëyee mew ni la bu tojee ñu ne ñu tuddee ko alif ak busaale alif ak busaale waaye jëmmi baatu mew ni moom wolof la wala lu rëy lu rëy mais ndax jëmmi mew ni wolof non non génn olof génn olof nañ suñu mbokk xalpulaar yi macha allah kon day wane rek boole fa la jaar kon foofu ba tey jeexit googu mu cee ñàkk mhm. jërëjëf sëñ Maxtaar ci leeral yu am solo yooyu jëm ci an na song mew ni mhm. bi ki topp mooy taslaañ taslaa yat atadaru muusee al araaf maa mm-hmm. tadaru min cheyin daariyaat mm-hmm. laa tubqi wala tadaru te mudassir mm-hmm. mooy ak laañ la muy del ju tooy la del ju tooy jërëjëf jëf mooy del ju am tomb mooy macha allah ko koy laañ macha allah sëñ Maxtaar ci leeral yu am solo yooyu jëm ci tas laañ ñetteelu laaj bi sëñ Maxtaar jëm ci wàllu boole mooy bi jut talli bi jut tàlli naayo li nga xamante ci lu lu tàlli lu bijj la daan doon mhm. tey nag bijjul ba noppi tàlli macha allah naayo mhm. am na tënk nag mhm. ñu ne mooy kaba xuja kaba xuja kalimatul araaf baqiyatu hóot xurratu xasas jannatu musni bu ci nekk taaga dañ koy tàllal kenn du ko def taama gu gu banko macha allah jërëjëf Cheikh Makhtar Kébé ci leeral gu am solo googu am na nag laaj bu ñu fi yóbbante xam naa dinañ ko dugal mooy boole ci xaraf ak boole ci ci kalima am na ko ko yóbbante incha allah xam naa dinañ ñëw ci leeral ci mujjanteelu émission ba mhm. sëñ Maxtaar ñeenteelu laaj bi mooy amaluhum amaluhum léwru yat ñett yoon la ñëw ci alxuraan rek la ñëw ci alxuraan muy ban ban karamadin mhm. baraam mooy mhm. ibrahima kasarabin nuur xabitat kulluhum xabitata goo gis amaluhum a ca tege dëgg la macha allah kon ñett yoon la ñëw ci alxuraan jërëjëf Cheikh Mamadou Muxtaar ci leeral yu am solo yooyu jëm ci amaluhum juróomeelu laaj bi nag mooy raa bañ maw ni fee da ngaa waxoon mhm. an na song maw ni mhm. fii nga ne raa bañ maw ni léegi raa gii nag mhm. alif gi ci tege day bañ a maw ni mooy day toj day toj kenn du ko di mm. daa bari nag yatun la 19 fukk ak juróom-ñeent yan ak yan la wanzur ila taamika wanzuri ila ximaarika wanzur ila alxidaami yëpp ngalaan Mhm. Mhm. unzur ilayka mooy mhm. xam ne kon euh, alif gi toj na unzur ilayka jabali yépp nga la araaf fasbiri na naayo la ñu ngi koy tënkee xuru xaxa xóot róom yaar xafraan muy xaxa muy xafraan da caa ñëw ñaari yoon hmm. fal yakfurin atad naa nga njenge fal yakfurinna fal yakfuri inna lim réy ñu ne fal yakfurinna atadna nga njenge wanzur ila ilahika nga tahi fanzur ila athare nga room wanzuri wanzu wantadhirinnahum ma nga sujood wantadhirinnahum ma nga sujood wadhkur ismaila nga njombaan mooy daawuda sujood mooy sajdati mooy sajdati masha allah waskur isma rabbika yaar la musammil ak linsaan fa dakrin nafaatee nga laala fa dakrin nama antaa nga xaashiyati wan xarin na shaani aka ca kawsar muy dix-neuf macha allah yaakaar naa mbokk sëñ daara boole woowu moom boole wu ndaanaan dëgg la comme ni ko sëñ maxtaar di waxee yaakaar naa sëñ daara yaa ngi jël seen bic ak seen kayit di bind tam jëm ci raa bañ maw nii fee da leen woon songu inna an na songu maw ni fii mu ne la raa bañ maw ni xam ne alif gi foofa day dog dootul taxaw sëñ Maxtaar leeral yi am na solo trop yàlla na yàlla barkeel xam-xam bi te guddal sa fan euh, sëñ Maxtaar juróom-benneelu laaj bi mooy yajurruhu yajurruhu laaraaf yatajarrauhu birima sidda ko yaar muy bu ci nekk raaga day sàdd yajurruhu yatajarrauhu hmm. mu ne sidda ko yaar hmm. Hmm. jërëjëf sëñ Maxtaar ci leeral boobu ñëw ci yajurruhu juróom-ñaareelu laaj bi mooy was bañ lomb. lomb mooy ak alif bu nekk ci kanam moom la ñuy wax alifu waslu amsa. Mm-hmm. amsatul waslu amsatul waslu. Mm-hmm. yii nag du ko am. was bañ lomb yet. Mm-hmm. was alu was al was alhum amu ci benn bu am alif ci kanam ñu ne was bañ lomb ñett. macha allah. jërëjëf ci leeral boobu jëm ci was bañ lomb ñett kon ñett yoon la ñu ngi jël ñëw ci alquran. jërëjëf. sëriñ Maxtaar juróom-ñeent juróom-ñeenteelu laaj bi wala juróom-ñetteelu laaj bi mooy zullatu zullatu naayo ñeent mhm. taat sidda lanraaf coon sidda yett yépp nga mus ni sullatun mhm. min al awalina wa sullatun min al axirina ñetti sullatu yi ca mus ni muy waaqa mhm. yépp coon la taat sidda nag ma nga lanraaf macha allah macha allah taat sidda ma nga lanraaf kooku leer na naañ fa tabarakallah sëriñ Maxtaar suñu juróom-ñeenteelu laaj mooy inda rabbi wan boole ci ñëw. mu may la ñaari baat yu am solo yuy daane. bismillah maa bi saaxibihim laaraaf. Mhm. maa bi saaxibikum sabain. Mhm. niroo taxul di benn. <laughs> noonu la ko ma ngi daan woowee. Mm, ba jaarat yi. bi saaxibihim mm. laaraaf. Mhm. maa bi saaxibikum sabain. niroo taxul di benn. niroo taxul li benn wax dëgg la. ndax bi nga ne maa bi saaxi la. dëgg la waaye kee day jaaxle kum kee jeexal moom. dëgg la ñu ne niroo taxul di benn. dëgg mënoo taxul la dëgg nga xam ne la leen wutale mooy ci fam daan fam daanoo. macha allah bi yaar la. Mm-hmm. lapa lañ koy tënkee. Mm-hmm. ak tahi. Mm-hmm. hindarab bihi naayo la. hindarab bi ak hindarab bihi. hindarab naayo la. ñu ngi koy tënkee. wama wa i. wama wa i. wama wa i. wala xawfun laan. mardiyan mariam mm-hmm. wa uhillat hajji mm-hmm. innahu muumin yooyu moo ci ànd ak hinda rabbihi mm-hmm. du ko lool ak hinda rabbi la euh, jërëjëf sëriñ maxtar Kebe ci leeral yu am solo yooyu jëm ci inda rabbi mu am solo lool jàpp naa ne mbokkum mbokk seen daara yi nga xam ne ñi ngi ci daara yi jamono yii di jàngale alxuraan képp ku ci topp émission bi yaakaar naa boole yi dara du la ci romb di nga ko bind jëm koo mokkal ndax dafa am solo trop sëriñ Maxtaar fukkeelu laaj bi nag mooy nafaan wala darran yan darran wala nafan dafa am ak mhm. nafxan wala darran boo xasee ba xam nafxan wala darran nag mhm. da nga daal xam fa darran wala nafxan nekk jërëjëf dafa am taqdim ak taaxir mhm. nafxan wala darran yett la lara sa lañ koy tënkee laaraaf la ak rahdi ak saba in lu ko may darran jaa jiitu wala nafan ja tege ca akbar nga xam ne ñett yoon la ñu ci alxuraan moom it kon ñett ñett ngay def kii ñett ñett juutal bee déedéet dama ne wala darran rek moo ñëw ci alxuraan ñetti yoon boo ca noppee leneen loo gisati daran wala nafan la mhm. bu ñu la génnee lee ñett ci dara mhm. ba nga xam ñett ya fañ ne mhm. la ki des dootoo ko laaj jërëjëf ndax <laughs> da xam fu mu ne macha allah jërëjëf sëriñ Maxtaar xanaa ci minute yu néew rek laaj boobu mooy boo doon leeral tey boole yi solo gi mu am waaye ki koy topp te bëgg a teqantal boolew xarfu ak boole kalima loo koy leeral la jërëjëf sañ Omar wax nañ fi ba tàyyi ne li ki sëñ waxoon doy na. ab tool ko ko am boo sañoon kenn du ko roof. te tool ba xëy na dugub la mën naa am muy ñebbe. mën naa am muy gerte. tool ba tool ne alxuraan ko ko am bokk yi. tañ na la ñag bi mooy tax du róor est-ce que ñag boobu du daw jëli ko te jéem ko caa ñag. ok ah, kon benn ngoog njariñal boole mooy ni ab ñag di aare mbay mi ba du róor ni la boole yi di aare alxuraan ji ba du róor. Mm-hmm. kon loolu doy na ci tënk. boole li tax ñu ne dafa am ay xeet boolew xaraf mooy araf yi mën na laa daan mooy bind booy bind ci sa xalima lépp lu ñu tuddee araf booy bindi ci sa xalima loolaay araf lépp lu ñu tuddee maas ka nag da ngay teg xalima ga fële tàmbali di ko maas booley araf li tax mu mën a daanee siin rek ci ko ne siin ni ma ko wax nga ne siin xam nga dafa bokk ci xurufal isfaar yi yi bokk na ca siin saad yooyu nga ne léegi nag siin moom dafa am siin kon léegi siin bi wow ak siin bi tooy araf lañ ndax booy booy bind doo teggi sa xalima lépp loo xam ne booy bind doo ca teggi sa xalima te indi andi caw boole loolu mooy tudd xaraf lépp loo xam ne booy bind da nga koy maas nag loolu mooy tudd booleeg maas ka dafa am beneen boole bi ko ñetteel mooy boole bi moom moom moom day jóokale ab jóokale la muy mën naa nekk fii lii dem nekk fële lale kon kiy bind yax wastax sew te tooyalu ko dem wowal ko siin boobu xarf la kon da ko wowal te fekk wastax saw day tooy li kay laa taa saw ki koy bind dem tooyal ko daanu na ndax si siin soosu day wow kon loolu nag mooy bépp booleeb araf bu ñu leen mas a waxati jamono yi ngay bind te maasagoo ci la lay daane bépp booleeg maas ka bu ñu la wax nag jamono yi ngay maas ci la lay daane booleeb xel nag mooy bi nga xam ne daa dafa comme li ñuy wax nafan wala daran daran wala nafan kooku moom nafan wala dara nag dara wala naf ñoom ñëpp ñoo niir ñu leen di bindee kon jookale la sëñ bi taqdim ak taaxir la bee daa jiitu fee bay mëri bushra lakum mhm. bushra ma inna mhm. waltatma inna bihi waltatma inna qulubukum bihi door a ñëw mhm. kon loolu moom jookale la ndax waltatma inna yaag yëpp niroo ñu leen di bindee kon dafa am booleb araf booleb maska booleb runge bu rungee bi nag mooy nafxan wala darran wala darran wala nafxan rey la galaay reewal lan faal naqu galaay nabi lan faal la ñu wax nga xam ne busra boo ne busra boo ci tegee lëkkum rek yaa nga galaay mooy mooy Ali Imran boo ne busra wa waltal ma inna nag yaa nga lan faal waltal ma inna kanam boo ne xu galaay boo ne bihi door a xu mooy boole wi nga xam ne dafa jóokaloo ñu ne dafa jaxasoo ci xelum ki nga xam ne mi ngi jàng kon ñetti boolee am boole araf buñ ko waxatee baat bi dalaa daanta maasagoo kon ci sa araf bi nga daanoo ma saw fii daati shawkati yashwil la shawban shuwaadun li shawee wastax shaw yooyu yëpp ay siin yu tooy lañ li kay laa taasaw watan saw na anfusakum yëpp siin yu wow la kon yooyu boolay xaraf lañ booleew mi nga xam ne nag kitaabu léewru samaana ñu ne saalika kitaabu mal kitaabu wala limaan ba ca ba jeexal ba kooku booleew ak ah, maska la ni ki nga ne euh, wujuhuhum léwru wujuhuhum léwru nga xam ne du wujuhahum ko tey boolew masque la yeta zakkaroon ñu ne tazza day ndende yazza day ndende te tazza bañ ndende yetazza bañ ndende tazakkaroo la araf man tazakkara fand ak bañ ndende yaar yeta yooyu ay ay masque la parce que bindoon nga ak yaa ak deel ju tooy ak kaaf ak waaw ak ra ba daanu la mais bi ngay mars nag boo def très attention da ngay daan ndax yatadakkaruuna day ndeende da ngay da ngay saal gi dem sàddal kaaf yatadakkaruuna mhm. day bañ ndeende moo tax yat sa ak tas sa ñooy ndeende mhm. sa ak tata sa duñ mhm. lu ñu def sàdda kaaf ko doo nga bàyyi zaal ga dëgg la waaye nag am na ñaar tazakaru ak man tazakara tasa lañ te teewul ñoom nag dañuy bañ dende xam ne kon génneewaat nga ci biir beneen xikma te mooy am na tasa ba nga wax ne dey ndende am na mm. tasa gudul ndende dëgg la muy tasakkaru dëgg la am nga geneen tasa gudul ndende muy man tasakkara ca faandaak mm. bañ ndende yaar mm-hmm. yooyu mooy boolee araf yi mm-hmm. ak boolee masque yi wasalaamaaleykum macha allah macha allah sëriñ Makhtar Kébé kon nii lañ koy defee rek incha allah muy lu bees saa bu ñuy ñëwati dinañ génnee question parce que ñaare ñu envoyé la ko te day mujj di naax saa rek waaye dañoo bëgg léegi bu question yi ñëwetee incha allah dinañ ko exposé fii ci émission bi laaj ko sëriñ Makhtar moom mi nga xam ne mooy yëngatu ci wàllu boole waaye di mutaxassis nag mm. sëñ Maxtaar yàlla na yàlla guddal fan wi te yaatal xam-xam wi xam-xam bi rafet na lool yàlla na ko yàlla barkeel ci barke alquran karim kon mbokk yi émission boole yi ñu leen amaloon mi ngi noonu tey ji nag muy ñaar fukk ñaar fukkeelu numéro ak benn ñu war a jëm ak yéen incha allahu ñaar fukkeelu numéro ak ñaar waaye bu leen fàtte émission yaru ak yare sëriñ sëriñ Mbàkke Sorong dina leen ci dikkal léegi ànd ceeg sëriñ Maxtaar Kebe di nuyuwaat compagnie alaaji sëriñ Seck ci njiital sëriñ Fàllu Seck ak Daam Touré mi nga xam ne ñooy coordonné émission bi ba ngeen mën cee jot di gërëm waa Kajoor waa Tiwaawan waa Fass Touré waa Njaareem bàyyiwuñ kenn mboolem fu daaray alxuraan nekk ba jaamal bàyyiwuñ fenn fu daaray alxuraan nekk di fa jàngale rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen ñaanal jàmm ak xéewal sëñ Maxtaar émission baa ngi noonu laataa ñuy yëkkati kàddu émission bi yan kàddu ngay tëje xanaa yi ñu tàmbalee woon mooy moom lan am moo nu fi bàyyi muy alxuraanul karim lépp luy tax ñu ixkaam ko wala ñu itqaan ko luy tax ñu xereñe ko loola war nañ cay xëy di ca wàcc mhm. ndax ñeneen ña ña nga ca sañ seen lañ yor di ca def lañ bëgg la kon ñu itam war nañoo am liberté totale mhm. suñ téere boroom ñu koy xamal suñ bopp mhm. te di ko xamal suñu njaboot te di ci woo ñeneen ñi ñu ñëw ci alxuraan nag ña cay wuy si ñeent la kenn kepp lay bañ kenn kepp lañ bañ ci ñeent ñi ñeenti xarit a nekk nii benn kepp bi koy juróomeel dañ koy bañ. muy ban kiy jàng baax na. Mhm. kiy jàng lu baax na. Mhm. ki bëgg jàng. Mhm. baax na. ki toll ci jàng baax na. ka ko juróomeel mooy ku bëggul ci ñeent yi benn. ku nil aalima. awil mutaalima. awil muhibba lahum wala takku awil musaacid sax ki nga xam daa yor alalam di ko ci def wala takkunil xaamisa fa tuxlika am na ñu ne wala takkunil rabia fa tuxlika xalaat mhm. bi mi ngi ci jàngoo jànguluwoo bëggoom jàng jàppale woo koy jàng kooku musiba la benn julit wuru koo def ci am xelam mhm. walbatikuwaat mën a yaakaar yërmande yàlla dëgg la ndax kon alxuraan nekkul force ci ñëpp mokkal ko mhm. waaye nag bu ko ñenn mokkalee day wàcc ña ca des xanaa xam ne loolu fi ne aw sas la ki nga xam ne dogoon ko nag moom nga am bàkkaar kon kon kon kooku kooku dara la ci yow. dëgg la de xayri boobu nga déggaan xayru man taan la man xuraan. Mm. mooy dafa sooy aw xeetam dong sëñ Omar. allahu junni nit bu ñu àndee kenn man te alxuraan bàkkaar ba wàcc na ñëpp ku leen ko wàcceel kooku. dëgg la kooko kooko te ñu am bàkkaar. Mm-hmm. kon xayri la moo leen gën. dëgg bu ñu waxee naan xayru man taan la man xuraan te du seetlu li ñuy wax dafa am dafa am ñu protéger. ci biir xayri gi. ci biir société bi. kenn ki man alxuraan dafa protéger société bi te ku la ku la protéger la gën. loolu de wér kon xayri ko man ta'allama al-Qur'aan mhm. moo tee nit ñi am problème wa allamahu moo tax nit ñi duñ mës a amee problème parce que ba ci bu kenn jàngaleetul moom bàyyi boo xam ne mën naa continuer mhm. moo tax kon man ta'allama al-Qur'aan moo gën ci nit ñi ndax bàkkaar bi waroon na ci nit ñi moo tee mu wàcc mhm. wa allamahu it moo gën ci nit ñi ndax bu ca kanamee dogon ko nag ab dongaam bàkkaar dana wàccaat ci ñeneen diqatu mafhum bi foofu lay jóge wasalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah macha allah sëñ Maxtaar ci leeral gu am solo googu nga leeral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 nuun wal qalami wa maa yasturuun